rajo defaral sunu bopp modu modu yëpp ak ko bokk ku ci jaaxle mbir na nga laaj bàyyi juuf gindi la rajo defaral sunu bopp moodu moodu yëpp ak ko ci jaaxle mbir na nga juuf gindi la asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp fii ci depuis Milan ci Italie xanaa rek ñu ñëw indil leen euh, benn aggiornamento nuñ koy waxee ci italien muy mis à jour ci mbirum euh, sanatoria deux mille vingt moom mi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, waxoon nañ ci barki démb gis ni mu yéexee mbir yi. yéexaay bi ci am doy na waar waaye nag mbokk yi tey di tax ñu ñëw di ci indi information yu bees mooy loolu ñuy wax contre contributi per lavoro domestico ndaxte xam ngeen ne wax dëgg yàlla li ëpp ci liggéeykat yi ñi demandé woon am permis de séjour ci sanatoria deux mille vingt li ci ëpp ci travail domestique lañ bindu. te travail domestique euh, ku koy wax dëgg yàlla da nga wax loolu ñuy wax contributo IMSS lan mooy contributo IMSS mbokk yi réew mi ñu nekk su yeboon réewu àddina yépp la sax képp kuy liggéey ki nga xam ne moo la jël di la liggéey loo war na lay fayal loolu ñuy wax contributo IMSS contributo IMS moo lay may wax dëgg yàlla euh, nga participer ci réew mi ci développement ci réew mi loolu ñuy wax moo wax contributi muy contribution ci doxalin réew mi muy lii di l'impôt aussi lidi di ñuy wax protection sociale parce que képp kuy liggéey ci réew duñ xaar ba nga nekk ci coono ñuy door a wax dañuy ba ngay commencé liggéey rek laam lu ñuy coppi ci la ngay fayeeku sa datore di lavoro moom it am lu mu yokk ci ñu verse ko li ñuy wax euh, protection sociale muy prévention sociale ndax mooy soo ñàkkee liggéey ñu mën laa fay li ñuy wax disoccupazione moo tamit su fekkee ne danga tawat ñu fay la li ñuy wax malatia waaye nag li nga xam ne moo ci ëpp maanaam mooy surtout nag soo demee retraite ñu mën laa fay retraite kon nag ci secteur bi ñuy wax contributi yi amul kenn koo xam ne yaa ngi liggéey Italie ba noppi ñu exonéré la nga bañ a fay contributi contributi nag datore di lavoro moo koy fay même su fekkee ne lay liggéeykat bi di feeku dina am liñ ci coppit yokk mais li ci ëpp euh, mu ngi war a dem ci employeur bi mbokk yi donc su dee euh, opéra yi normal la kuy liggéey ci fabrique yi loolu moom chaque mois lañ lay dagg ci sa bulletin de paie waaye su fekkee ne euh, travail domestique ñoom dañ leen may datore di labor bi jot loolu ñuy wax bulletin postal yi nga xam ne chaque trois mois lay ñëw te chaque trois mois mu ngi nekk commencé li diggante deux cent ak quatre cent cinquante euros ça dépend ci nombre d'heures yi nga xam ne moom lañ jël liggéeykat bi waaye tamit mbokk yi mu ngi dépendre ci niveau la bi nga xam ne ci lañ jël euh, liggéeykat bi kon nag question bi nga xamné nit ñi dañ koy faral man may montant bi te suma xarit bi limi fay catégorie nombre d'heures yañ def ci contrat ba li nga définir déterminer li nga nit donc contribution euh, IMS IMS moo koy encaissé ay bulletin lay nekk sénatoriat bi nag xam ngeen ne wax dëgg yàlla nit ki dafa mënoon def loolu ñuy wax communication waaye wax dëgg yàlla IMS gis na ne ñu bari déposé nañ sénatoriat waaye nag yónnee guñ defaguñ loolu ñuy wax seen communication lii moo tax mbokk yi IMS anticipé maanaam daal mu jël décision ndaxte nag euh, luy dugg ci keesu nguur gi moom nguur gi warul xaar loolu tax euh, ci semaine bi su ma yeboone semaine dernière sax la commencé employeur yu bëri ñu koy wax datore di lavoro yu bëri jot nañ bulletin yi jot naa ci tey ay ñu bëri ñi ma oo bulletin yi ñoom dañ ko def par ñetti weer la maanaam janvier février mars la ñuy boole mu nekk benn bulletino bolotino boobu nag avant le 10 avril suñ boolee avril mai juin tamit nga war fay avant le 10 juillet noonu le tegaloo ba at mi ba IMS janvier 2022 ndaxte dernier bulletino bi muy octobre novembre décembre nit ki fay janvier 22 kon nag wax ji léegi wax dëgg yàlla dafa mel ni dafa jeex ndaxte ku def communication ak ku deful communication IMS moom dafa boole yëpp yónnee ko ndax xaalis buy dugg ci kees yi nguur gi la ci kees yi IMS te IMS warul yox yoxi xaalis bu mel noonu mu perte ko kon nag li ñuy wax nit ñi rek moo di ne ku ko jot bul ci am looy tiit bul ci am looy ragal ku ci jot dinañ la may nga temps pour nga mën dem fay ko question bi nit ñi di yaakaar nag ne soo jotee IMS wala soo soo ko jotee mooy sa sanatoria jàll na soo ko jotul mooy peut-être loolu ay ay ay xalaat la rek waaye nekkul ci yoon nekkul yoon maanaam képp koo xam ne jot nga san euh, boletino rek bul yaakaar ne sa ya jàll na parce que su moom li muy def mooy ku wax ne damay jël nit nga koy liggéey su moom du yox yoxi daf lay yónnee bulletinu yi euh, ki nga xam ne mooy toppatoo nag euh, mbirum sanatoria bi pour xam ndax sa dossier dina jàll te su moom mënul xam yow ndax sa dossier dina jàll wala déet day yónnee bulletinu yi rek euh, mais sportello unico immigrazione wala ispettorato del lavoro su région yu mel ni Sardegna yu moo fa am ñu ñooy caytu sa mbir ñàkkul ne suñ koy caytu mën nañ xool ndax yaa ngi commencé fay contributi waaye gis nañ ne am na sax ñu jot seen séjour bëriwul gaa mais jotuñ sax commencé fay contributi ala kuliyaalin muy nga fay euh, nga jot séjour bi amaa ngay def communication bi mais comme ni mu ko waxee presque si d'office jël na dogal boppam <laughs> def communication mottali communication yi ba noppi di yónnee euh, bulletin yu pour nit ñi ko fay kon nag képp koo xam ne yaa ngi fay bulletin yi nekkul ne nag dañoo wax nga fay ko benn yoon parce que lu ci nekk may nañ la délai maanaam bulletin bu janvier février mars mën nga ko fay 10 avril bu avril mai juin mën nga ko fay 10 juillet euh, bu juillet aut septembre mën nga ko fay 10 octobre bu octobre novembre décembre mën nga ko fay 10 janvier 2022 nii la tegaloo kon nag képp koo xam ne euh, gis nga ne wax dëgg yàlla jot nga bulletin yi bul ci tiit bul ci ragal waaye nag bul yaakaar ne rek yaa ngi fay bulletin ko yépp mot na parce que ña kay mottali ñooñu ñeneen la mooy supporter lu unico immigration ne te ñooñu wax dëgg yàlla euh, suñ gisee ne mbir mi mot na këyit yi mot na dañ koy jàllale waaye su fekkee ne am na lu manqué dañuy def loolu ñuy wax intégration su fekkee ne nag dafa am problème yu bloqué dossier yi tamit dañ lay yónnee dañ lay yónnee nga nga mottali intégration waaye ala kuliyaalin képp kuñ ci euh, euh, ne sa dossier rejeté nañ ko yu mel noonu bul tax nga ragal parce que comme ni ma la waxee ñoom suñ ne dañuy rejeté dana am motif bu ñu joxe su fekkee ne am nga yeneen yu génne yu daane motif boobu euh, wax dëgg yàlla da ngay tontu yónnee leen ko ñoom ñu caytu am nañ ci ñoo xam ne mbirum loi moo xat moo sew ñoo xam ne demoon nañ bañ bañal leen. waaye bañ ko caytoo na ceeg ñoom yàlla def na bureau ba bañoon mujj na d'accord wax ne lii dëgg la kon nag bu ci kenn tiit bu ci kenn ragal lii mbirum travailleur domestique yi la euh, wax dëgg yàlla bokk nag bokkul ak ñi nekkoon travail agricole loolu beneen secteur la boo xam ne euh, centro per l'impiego yi ñoo koy gérer mais lii nag IMS directement moo koy gérer mbokk donc lii lañ leen indiloon di leen euh, wax seen xarit bay Diouf fii ci Mila, di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf Jangan Radio deferral sunu um, bopp oh, jaaxle dañ na ci moodu moodu yi ku am looy laaj laajteel dana la leer a leer ku ci jaaxle mbir na nga laaj bàyyi juuf gindi la rajo um, sunu bopp dindi oh, na fi jaaxle ci moodu moodu yi ku xamul laajteel